ak sëñ Cheikh Diouf jërëjëf sëñ sëñ sëñ Modou ci ci ci leeral yi am na solo lool waaye li nga jiital ci sëñ seex juuf mi nga xam ne moom pasteefam ci liggéey bi da ko ci da da ko ci fesal ca loolu rek ngeen mas a àndee liggéeyal sëñ Tuubaa loolu am solo la yàlla na yàlla boole leen sàmm te dëggal mboolem yaakaar yi nga xam ne ñu ngi koy am ci liñ jublu incha allah eh, bu ko defee xam naa dañ jàll ci ñi nga xamante ne ñoo fi nekkal waa ECHOCH eh, ñuy leen di tuddee nuuru daaray nii Euh, ñoom sëñ Pape Thiam ak soxna Ramatu Laay Kan bismillah waaw bismillah soxna sëñ Pape Thiam ak soxna Ramatu Laay Kunta ak Kanté waaw <laughs> moom da yow kii na waaw Eh, ñoom ñoo leen fi teewal mooy waaye Scotland wala Écosse ñoom la ñu tuddee nooru daare ni kon xam naa sëñ Pape Thiam mooy wax ci seen tour incha allah ñu jébbal ko kàddu gi bisimilah. auzu billahi mina sheytaan rajim auzu billahi mina sheytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ziar si turu di leen ziar si turu nuuru daayira ni Scotland di leen ziar si turu nuuru daayira ni Scotland suñu turu jóorin Yankuba Diallo euh, man maay Pape tey jii ma leen toogal fii si daal liggéey bi nga xam ne liggéey bu gën a sàll boo xam ne daal def naa kuy jullit sàkkantuma murit liggéeyu sëñ Touba si jumaa ji amul liggéey bu ko gën a yaatu amul liggéey bu ko sal gën a sal te gën ko barkeel ñoo ngi si sant yàlla bu baax a baax bi nga xam ne suñu boroom ak sëñ bi boole nañu si te mu nekk loo xam ne daal tey jii ni ma ko gisee muy suma bés bi ma njëkk a ñëw di jébbale suñu àddiya si liggéey bi bu toll nii ah bu ma sañoon daal suñu waa daara bi yëpp fekk ko gis ko xam liggéey bi nu mu yaatoo ak nu mu amee solo man tey jii moom mbir mi dafa ma jëlee kaw ndax euh, daal damay gën sant suñu boroom gën sant sëñ Touba xam ne rek kii moom du a du lu hasard yàlla mun ñu si boole te yàlla euh, daal gën ñu ubbi ak do may ñu doole boo xam ne yéene bi ñu am si biir liggéey bi muy gën di jëm kanam te dégg naa si ay wax yoo xam ne léegi ku mel ni Serigne kebe wala juuf wax na mbirum lu am solo muy organisation te organisation organisation defe naa ni ñu ñëpp a ko xam te dafa nekk passif boo xam ne bu ñu ko defee ensemble liggéey bi dina gën a dëgër ndax mbooloo mooy doole te defe naa ni say bi moom muy Écosse muy Angleterre muy France muy Espagne ñu ñëpp bu ñu connecté def na connexion am na wante ñun ñëpp bu ñu boolee suñu ay xalaat ak suñu Pastef ak suñu am am am suñu doolee def na foofu lay gën a yombee sax foofu lay gën a amee solo boo xam ne buñ ko lu ñu mun a jébbal ak lu ñu mu fu ñu mun a taxaw foofu la doole bi di di di génnee di di am solo wante nag xeebu ñu li fi nekk xeebu xeebuñu euh, ku nekk dooleem ak ñàkkam ak liggéeyam wante daal defe naa ni mbooloo mooy doole te defe naa bu ma demee Scotland incha allahu rabbi ba toog ak suma mbokku taalibe yi def naa dinañ gën a yaatal suñu liggéey si biir Angleterre ba suñu mbokk taalibe yi ñu jege muy Irlande Irlande du Nord ba France incha allahu rabbi yàlla nañu yàlla suturaal ubbi ñu te sëñ taxaa yàlla na fi yàgg te ñoo ngi leen di ñaanal di sàkku ñaan si yéen te daal na ngeen ni dëwén ah ñun ñëpp booluwaat tesewaat fii te yàlla ful ñu sëñ bi ful ñu te ñu daal ñu pasteefu incha allah am nañ si yaakaar incha allah rabbi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waaw sëñ sëñ Pape Thiam jërëjëf sëñ Pape Thiam eh, day mel ne sax sëñ boobu di waa waa waa Côte ñoo ci war a topp sax bi may déclaré waa Scotland dama dañoom dama waroon wax ñoom ñu waaj bu ko defee xam naa ñoom ñoo ciy topp ci teewaayu sëriñ Touba Lo sa Sadex Kan ak mboolem mbokki taalib yi nga xamante ne ñoo teewaat ak sëñ Aliou Thiam am na mbokk taalib yoo xam ne ñu ngi teewaat bàyyi ko foofa eh, bu ko defee xam naa kuy wax ci seen tur moo xam sëñ sa deex sëñ sa deex loo wala sëñ sëñ sa dex kan wala sëñ Tuubaa walla wala àll Aliyu ko ciy wax ci seen tur rek mën naa agsi waa waa waa Mali mën nañoo waaj boo ko defee bu ñoppee rek ci ñoom la ñuy jàll si incha allah sëñ sëñ Touba moom mooy wax ci tur waa Côte ak mbooleem mbokk taalibe yi fa nekk di liggéey ak daayira Moukhaddamatoul Khidma bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokki jataay bi yépp noo ngi leen di nuyu te di leen siyaar noo ngi leen di nuyu lu bari euh, te di leen siyaar di jiital nuyu ak siyaar yëpp sëriñ Touba sëriñ Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké Al basiir di ko ñoonal yàlla suñu borom àggaleel ko ay naalam ak yéenami ki bëgg-bëggam yëpp mu ànduk ak mboolem jullit yëpp bi barkati borom Daaru Muxti bu loolu jàllee rek ñu dellu si di am contentement bu baax ci teew gi nga xam ne si ne dellu si waat nañ ren teew si ko ci jataay bii ànd ko ak suñu mbokki jëwriñ yi nga xam ne si ne ñu ngi ci Touba Côte d'Ivoire yëpp euh, waaye suñu kàddu yit ñu di ko jàllale ci kii nga xam ne si ne mooy ma Magoumba Thiam bi nga xam ne moo représenté xalifa général ku murit euh, ci Touba euh, Côte gi yépp waaye ci biir jataay bi tam ñu ngi ci ànd ak Serigne Aliou Thiam ak Serigne Bara Fall xidmatul xadim ànd ci it ak sëriñ Sadikh Kane bi nga xam ne si ne nak jekk ñoo daa ànd di ñëw ci liggéey bi ak mbokki taalibe yoo xam ne si ni ñoom ñëpp ñu ngi fi Serigne mbay Diop ñu ngi fi ak yeneen yoo xam ne si ni ñëw nañu fi ñu ànd ñëw xëy na bi ñu julli li la ñu ñëw ba jutu jotuma xàmmee waaye ñoom ñëpp ñu ngi ci jataay bi ñuy rafetlu bu baax euh, teew si gi nga xam ne si ni ñoom ñëpp teew si nañ ko fi tey ndax li ñuy wax tànk liggéey Serigne Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam la am loolu wane na ko tey jii ci suñ jataay bi nga xam ne si ne Touba Côte d'Ivoire teew na fi ndax bu jëkkoon lu ci ëppoon ma sëriñ Sadex Kan rek ñun ñoo fi daal teew si waaye teew si googu ñu fi daal teew si ak sëriñ Sadex Kan tey ji suñu borom jagleel nañu mboolem jëwriñ yi nga xam ne si ne ñu ngi ci Touba Côte d'Ivoire yëpp yàlla def na liggéey bi mel na ni que bu fekkante ne daawoon nañ soññe mel na ni que àggugutoon ci ñoom cent pour cent waaye ci année bii ñu nekk nii yàlla def na tawféex ba liggéey bi àgg na ci ñoom ba jëwri nii ñoom ñëpp tey ji mel na ni ko fekk si nañ jataay bi sëriñ ma gumba ñu ngi doon déggante sànq bëggoon woon nañu waaye dafa mel ne ki dafa am lu ko xaw a galfan bu ñëwut waaye yéeneem ak xolam lépp mi ngi ci jataay bi ñu ngi doole sant sëriñ tubaa bu baax nag gannaaw bi nga xamante ne bunt yi ñu war a liggéeyal sëriñ Tuubaa bari na waaye mu tànnal ñu bunt bii nga xam ne si ne mooy béréb bi nga xam ne fii la sëriñ Tuubaa tëdd di dallu mu tànnal ñu ko mu béréb boo xam ne si ne fii la ñu war a liggéeyal sëñ bi kon loolu ñu ngi ci soññ suñu bopp di ci soññ mboole mbokki taalibe yi nga xam ne si ne ñu ngi ci diwaanu Côte d'Ivoire yëpp waaye itam di sant mboolem jëwrin yi nga xam ne si ne ñëw nañ fi ngir teewe si jataay bi waaye itam ngir bëgg a xam li nga xam ne si ne mooy dëgg dëgg eh, sababu liggéey bi loolu kon lu mel ni wane na ko ndax eh, mboolem réew yi nga xam ne si ne ñu ngi ci àdduna bi yëpp ëpp tey jii teew nañ fii ci jataay bi loolu dafay wane ne que liggéey bu liggéey bu am solo la liggéey bi nag comme ni nga xam ne si ne noonu lañ ko baaxoo di waxee rek euh, noonu lañ koy fàttalee lu ci ëpp ci liggéey bi màggalu Tuuba ak li nga xam ne siine ne mooy weeru koor ak li nga xam ne si mm-hmm. mooy entretien jumaa ji ak li nga xam ne si mooy mooy armeelu bàq yi loolu lu ci ëpp Sëriñ Asan mi ngi koy faral di wax lu bari loolu na kon ñu ngi ci tàllal loxo mboolem suñu mbokk yi nga xam ne si ñu ngi ci diwaanu Côte d'Ivoire yëpp kenn ku ci nekk loo ci jàppoon nga gën caa jàppaat ak sa fukki loxo te xam ne fii nga xam ne si ne fi lañ ko jàpp donc fii la kon nañ ci gën a góor góorlu di sant bu baax mboolem taalibe yi nga xam ne si ne ñu ngi ci Touba Yamoussoukro eh, ci njiital suñ eh, jëwriñ Serigne Balla Diop bi nga xam ne si ne moom moo représenté foofu ci Touba Yamoussoukro ak mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne si ne ñoom lañ bokkal nekkal ci daara soppe Serigne Touba Khadim Rasoul te ñoom itam saa bu ñu leen soññee liggéey bi ñoom itam ñu ci def seen kemtalaay kàttan lu ñu mën ak mënut ak ñi nga xam ne si ñu ngi fii sax ci réew mi di ci déggante ñun ci daara ji di ci joxe seenu ñax ñoom itam ñu ngi leen di sant eh, di leen gërëm di leen jaajëfal ngir ñu bañ a guddal daal dañuy wax rek mbokk yi fii nga xam ne si ne eh, fii lañ féetee muy liggéeyal Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ci daar daara Muxaddamaatul Xidma loolu ñu ngi ci tàll loxo mboolem adduna bi yëpp di ñaan yàlla ñu daje ci ngërëmal Sëriñ Tuubaa bi barakati alhaji Mouhamadou Al Fadal Mbacke wasalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. Ah, ak sa jërëjëf sëñ Touba loo mi doon wax ci turu waa Touba Côte d'Ivoire yëpp ak mboolem mbokki taalib yi nga xam ne fekk si nañ ko fi moom eh, ci jokk ci jotaay bi moog sëñ Sadex Kan mi nga xam ne ñoo jiitu woon um, te mu lim leen léegi nga xam ne bi ñu julli lañ egg si ñoom tam ñu ngi leen di dalal jàmm eh, di rafetlu bu baax a baax yitte gi ak yitte woo liggéey bi xam naa dañ jox waa Touba Mali kon. Euh, ñoom ñi ñi leen fi teewal mooy sëñ Abdou Khadir Mbow ak sëriñ Maam Balla Guèye ñoo leen fi teewal xam naa kuy wax ci seen kàddu ñoom ñaar mën naa ñëw sëñ Maam Balla Guèye xam naa waa Touba Togo sëñ Mamour Darame mi leen fi teewal mën naa waaj bu ko defee bu euh, sëñ Maam Balla noppee rek mu mën a jël kàddu gi incha allah ñi nga xam ne teew nañ waa Touba Anvers doon gis sëñ Moutala ak euh, sëñ Khady xam naa ñu ngi leen dalal jàmm bu baax ñoom itam incha allah bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziyaare di jiital ci nuyoo beeg ziyaare bi sëriñ Afia bu sal imam di ñaan yàlla suñu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaanal bu baax tamit jëwriñam yi nga xamante ni ñoom lan àndal liggéeyab sëriñ Touba yi te. ñu ciy soññee bu baax a baax a baax di ziyaare bu baax tamit mbooleem jëwriñu diaspora bi fi teew yëpp ñu ngi ziyaare ñëpp tey ñaanal ñëpp tawféex di ziyaare bu baax tamit sunu coordinateur général di Serigne Assane Diop di jàmbaar lool ci liggéey bi ñun de buñ santee yàlla sant Cheikhul Khadim moom la ñuy sant euh, jaarale liggéey bi ci Serigne Mafari Ndiaye mi nga xamante ni liggéey bi fu baree bari ci Afrique moo ko fa yóbbu te ñun ñi liggéey bi jaar ci loxoom bu yegsi ci ñun muy jàmbaar lool sëñ ma fariñ ñu ngi koy nii bu baax a baax te di ko ziyaare te di ko ñaanal Serigne Touba defal ko tawféex fa mu nekk ndax wax dëgg yàlla démb rek mu ngi jokkook man ci réew mu sore sore mu mu nekk li ma wax ni fi mu ne nii maa ngi ci pexey liggéey bi dox foofu te noonu la koy defee ci réew mu mën a dem ci li jëm ci wàllu Afrique kon ñu ngi koy ñaanal yàlla sunu borom dolli ko tawféex di ziarat sëñ Assane bu baax a baax a baax di ziar mboolem jëwriñ yi nga xamante ni tamit ñoom lañ àndal liggéey sëriñ bi ànd nañ ceeg euh, sëriñ Jili Abdou Khadir mi nga xamante ni mooy trésorier daayira Muxaddamatul ma Mali ak sëriñ Fallou Thiam mi nga xamante ni mooy secrétaire général bi ak euh, sama rak sëriñ Bas Aan ñoom ñoo ànd ñëw teewal fi waa Mali liggéey bi nag dañuy sant yàlla ñun bu baax ndax jotaay bu sell bu toll nii képp ku ci yàlla sunu borom boole war ngaa sant li nag day firndeel ni liggéey sëriñ bi képp ku ci nekk sëñ Touba moo lay tànnal boppam loolu nag ak cant la ndax suñ jëmm yi ni mu xeeboo liggéey bu jëm ci jumaa yi Touba ni mu toll sëriñ tubaa choisir la tànn la war ngaa dugg sa ruq mën a kan xoolaat sa bopp yow lu tax sëñ Touba boole la ci mbooloo mi waaw te ak cant la ak cant la du ñëpp la ko yàlla suñ borom jagleel liggéey bi Mali bu ma daan soññee damay wax ni bu kenn wax kenn loo xamante ni du dëgg ba ngir bëgg mu ñëw ci liggéey bi nan wax liggéey bi ni mu demee rek ku ci nar a bokk sëñ Tuubaa la ci booleel boppam te dañ koy gis ñi nga xamante ni ñooy ñëw jaayante ngir yàlla liggéeyal sëriñ Tuubaa rek saa su nekk duñ tay duñ yokkat wante ñi nga xamante ni yaa leen wax di leen xëcc di leen xëcc ban ñëw buñ jàppee tey bu subaa ñu bàyyi kon ku ciy liggéey gëmal ni sëñ tubaa moo la liggéey liggéeyloo te képp ku sëñ tubaa tànn boole la ci liggéey bi war ngaa sant yàlla bu baax baax du alal moo koy maye du doole du xam-xam du dara tànneef la rek sëñ tubaa tànn la boole la ci kon loolu doyoon na sëkk ñu sant sëñ tubaa ba teel ko liggéeyam bi ba sëñ bi du am gàcce ci ñun ndax kat damay wax ni liggéey bu ni fu jëm ñu ni ci jumaa yi tubaa loolu képp koo xamante ni toq na sa nopp ak nam ca war a toqe nga dégg ko jàpp naa ni bu fekkee ni dara mi ngi ci yow ci ak murit ci ak taalibe war nga caa dox ba mu jeex li ma ci bëgg nag man di ko wax mooy sëñ Assane dama ni woon ñun waa euh, Afrique dinañ fexe ji ma booloo forme benn bureau boo xamante ni day doon cordination générale boo xamante ni Afrique lay wër wante bi ma ñëwee fii xool jataay bi dama ni kon nag waruñ wërtoo jëm Afrique rek képp koo xamante ni jëwriñ nga liggéeyal daayira mu xaddima xidma ak foo mën a nekk war na noo am nag jotaay yoo xamante ni dañuy toog di waxtaan di réunion ngir liggéey bi lu koy jëmale kanam am na jëriñ ci ko xam léegi ndax lépp loo gis rek organisation la ku nekk nekk ci réew ma nga nekk dajale si àddiya indi baax na wante nag am na loo xamante ni suñ ko defee ci la doole ji di gëne ndax ñi ngi wax ni am na ci ñetti jafe-jafe yoo xamante ni jooy nañ ko ci màggal gi muy ñaari citerne ndox yoo xamante ni benn bi ci jumaa ji ak benn bi ca bàq ya ak oto mbalit boo xamante ni day taxaw ci jumaay di jël mbalit mi di yóbbu te loolu ñun ñi rek ñoo ko war a jëf te suñ booloowul duñ ko man te kon loolu bala ñuy jóge fii sax waroon na nas pexe moo xamante ni bala ñuy jóg ku ci nekk booy dem di booy dem di nga yóbbaale pexe moomu ngir ñu mën a fexe ba loolu mën a am ndax liggéey sëñ Touba moom képp koo xamante ni da nga naan jàkkaarloo moom ni lii mën mënta nekk rek xamoo sëñ Touba luñ ko tàmbulee rek mu mën a ne te luñ ko fasal tamit ànd ceeg Pastef aku fit rek loolu loolu mën a ne na ndox kenn ab ah, sëñ Tuubaa am na taalibe yoo xamante ni kenn mën na cee jënd fukk barke sëñ Tuubaa kenn mën na cee jënd fukk kon jumaay liggéey bu toll ni jumaay Tuubaa warta toll foofu waaw kon liñ ciy ñaan mooy bala ñu bala ñuy jóg wala buñ jógee balaa kenn dellu dellu ci réew ma nga nekk nan fi def benn réunion générale boo xam ñun ñëpp ñooy toog ñu xool nuñ koy nose bu fekkee dañu ubbi compte boo xamante nii dañuy wax ni compte bi kat compte diaspora bi yëpp la képp koo xamante ni dellu nga fa nga nekk liggéey bi nii leen ko bëggee lu ci waaye di dajale nu koy dugal ci compte bi ñëpp di ko xam ñu jëmale ko màggal gu déwén balaa màggal ñu gaaree oto yu yu yuy indi ndox mi fii sëñ Touba am na ko man na ko te taalibe am nañ pas-pas bi kon nag loolu maa ngi ciy soññi diaspora bi yëpp di sant tamit waa Touba Mali gën jóge sëriñ maam Balla Mbakke ak soxnaam soxna maam Fati ak waa daayira Matlabul Fawzeyni nga xam ñoo yor kër sëñ Touba gu mag gi ñu ngi leen di sant bu baax di sant taalibe fa nekk tamit liggéey boobu ma wax léegi nag ñoom laa ci jëkke ndax ñun Mali lan am te ay jàmbaar a nga fa ay liggéeykatu Serigne Touba nga fa maa ngi wax ci kàddu gii di leen wax ni liggéey boobu de bëgguñu kenn man ñu ci ndax ñun ñaan ñu yàlla kenn mën ñu ci liggéey sañ Touba te tamit liggéey sëñ Touba yi fiy jaar tamit kenn mënuñu ci kon liggéey bii tamit di soxla jumaa ji mooy soxla sëñ bi rek kon ñi ngi ci tàllal loxo mbokki taalibe yépp képp ku nekk Mali muy autorité muy kum mën a doon ñi ngi lay tàllal loxo ci liggéey boobu nga xamante ni moom laan fas yéene xam naa kàddu gi du mën a du mën a gudd ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu lu ci dëng rek ñi ngi koy tub bu baax a baax tawarkal loolu sëñ Ibrahima jërëjëf sëñ Maam Balla tawarkal la waaw maam lii rek mooy sottal liggéey bi bu ko defee kenn ku ne bu waxee ni nga xamante ne noonu la jàppee ne liggéey bi noonu lay gën a janee rek moom day day day gën a baax incha allah bu ko defee buñ ko songoy noonu rek day day day day sont bu soobee yàlla bu ko defee kon waa Touba Togo sëñ sëñ Mamour Darame bu bu kii rek mu jege bu ko defee wax ci waa ci ci seen tur bu xam naa waa Touba waa sëñ Fallou Diop wala sëñ Khadim koy wax ci seen rek mën naa mën naa mën naa bàyyi xel bu sëñ bu sëñ Mamour noppee mu jege si bisimilah. Euh, asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu man jërun Mamou Dramé maa ngi wax ci turu euh, Miftaahul Xëyoor Touba Lomé te Serigne Saliou Mbacké tuddee ñu ko. Euh, ñun nag suñ xol daa sedd guy wax dëgg yàlla ma bëgg nag mboolem sëñ mboolem sëñ Touba mii tey maa ngi sàkku na ñëpp wax ne Serigne Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg te wér. sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te euh, sëriñ bi xam na itam moom moo jiite liggéey bi nekk jëwriñu liggéey bi muy sëñ Afiya Buso yàlla na fi yàgg te wér ci bàkk sëriñ Tubaa yàlla na fi yàgg te wér ci bàkk sëriñ Tubaa ñun nag suñ xool daa sedd guy ndax euh, dañoo am xéwalu sëñ Afiya Buso yónnee nañu ay kilifa mu nekk sëriñ Abdoulahat buso ak Serigne Djili Khalil Bousso fekk ñu Togo ñoom gën na ñoo soññ ci liggéey Serigne Touba bi mu jëm ci jumaay Serigne Touba ji ndax lu Serigne Touba bind bàyyi fi la kon buñ buñ ñëwee wax ñu loo xam ne tax na ñu waajal ko ñun ñun waajal nañ ko ñun léegi yamatuñu ci maanaam weeru koor wi ñu yónnee addiya mu ñëw yamatuñu ci loolu de suba lañ fexe jébbal suñu addiya Serigne Afia Bousso suba incha allah. suba lañ fexe lañ fas yéene jébbale suñu addiya suñu bu so lépp jëm ci muqaddamatul xidma ñu ngi ñaan yàlla ci barke sëriñ Touba liggéey bii yal na yàlla def Serigne Touba nangul ñu ko ci barke Serigne Touba nangul ñu ko ci barke sëriñ Touba di wax itam ne waa Touba lome Miftaahul Xoyoor man maa ñëw man Mamour Dramé ak suñu. jëwrin si Cheikh Bamba Diop ñoo ànd ñëw mbooloo mi yëpp ñu bëgg a ñëw ñu ne mbooloo mbooloo mi ñaar mooy ñëw moo tax ñaar ñu ñëw mbooloo mbooloo mi ñëpp bëgg a ñëw ñi bëgg na ñëw suba siyaare si joxe yi ñëpp bëgg a ñëw ñu ne leen ndigal la ndigalu ñaar la ba ñett la moo tax ñëpp bëgg a ñëw kon nag ñu ngi sant waa daahiratu Muxaddamatul Xidma di leen wax ne ñun ñu ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin bi ñu yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa Mbàkke boole ci ab liggéeyam lii daa rëy sëñ Tuubaa bind bàyyi fi sëñ Muntaxaa nag ñëw yaatal lépp ba tax tey ñu toog fii tey di wax ci liggéeyu Serigne tubaa loolu loolu moom suñ xol sedd na ci guy yi bakki Serigne Touba kon nag ñu ngi sant itam kilifa yi xam ne ñoo ñëwoon ci ñun ba xamal ñu li xew ba tax ñu gën a gën a gën a bëgg a yokku li waa Mali wax rek ñun waa Togo itam bëgguñu kenn man ñu ci nag liñ wax ne war nañ ko def déwén muy muy oto yii. nañ ko nañ ko nañ ko jéem a fexe luñ fexe dañ ko man waaw ñu ngi ñu ñu ngi waxaat tam ci wàllu miftaaxul xuyóor di wax ne ñu ngi invité jëwéen yëpp nag ndax ñun sëñ Tuubaa dafa def sëñ Muntaxaa ñaanal ñu nañu dem leen liggéey ba liggéey ba mat te bu kenn manqué ñu dem liggéey liggéey juma def fa Lamp Fall Baabul Muridiina sëñ Muntaxaa xool ko ne sama xol sedd na guy ci Lamp Fall Lamp Fall Baabul Muridiina bii ma ñu wax ne nag képp kuy tabaxati nag comme sëñ Tuubaa bindul kër